kàddu yi ñuy yëkkati kàddu yi cant la ak kàddu yi soññe ci bis bi ñu yendu tey ak bis ya ko jiitu te murid yi fu nekk ñu ànd fa ak Touba ci kanam ba mu mën a toll fii ba mën a defal lii Serigne Touba tey nag dañ doon ubbi bis bu am solo boo xam ne mooy taarixu Touba muy projet bi ñu naan naatal Touba li tax ma ne mooy cosaanul Touba mën naa koo jël la sax mën na maa wax ne mooy cosaanu doomu aadama ndax tey dañoo daje woon di jëmbat ay garab te ku xam doomu aadama fa mu àndee garab yàgg na ca aljana la woon booba sunu maam aadama wàccagul fii ci kaw suuf sunu borom dugal digal dugal ko àjjana jox ko xéewal yépp waaye am na benn xekk ma bu mu jëfandikoo wala taqraba haasihi shajara yow ak sa soxna mu wattandiku leen garab googu lan moo tax yàlla ayee ko garab gi lu tax mu tudd garab ak le nekk àjjana na mu bëree lépp loolu njàngan mu réy la bi doomu aadama ñëwee ci adduna sunu boroom takkale ko garab mun ñoo takkale ko ñuy jariñu ci lépp garab ay xobam ay reenam am xasam meññitam lépp doomu adama di ko jariñoo bu dee fii ñun ci olof yi sax baat bi ñuy wooyee garab dafa mel ne dañoo jël baat buñ munta ñàkk ndax képp koo xam ne am na lu lay metti te nga bëgg faju tur wowu ngay woo muy garab ak guñ la mën a jox rek da nga naan garab kon ñun xam nañ li garab di jëriñ doomu aadama waaye garab googu bi nga xamee ne yàlla dogal na muy loo xam ne dafa taqoog doomu aadama lu njëkk muy ñëw ci àdduna diir bi mu nekk ci àdduna yëpp sunu borom takkale ko garab muy lu mënta ñàkk ëllëg bu ñu delloo aljanna itam ay garab la fay nekk alxuraan tudd na lu bëree bëri ci ay garab tudd na lu bëree bari ci ay garab bëri na lu muy nettali ci xéewali aljanna waaye da ngeen di gis muy wax lu bari am meññet ju tudd ay garab ba egsi nag ci li mu wax ci alquran alladina amanu wa amilu salihati tuuba lahum wa xusnu maabi baatub tuuba sëriñ tuuba dëkk bii nañ bàyyi xel ne ak garab la ko tuddee ak garab la tuddee dëkk bii kon bu ñu dellusiwaatee di ko liggéeyal ci garab delloo nañ bàtt ba ca ni olof di waxee ca boy boy ba ndax dëkk bi dañu naan àjjana sax lañ ko tuddee loolu la ñuy wax waaye ak garab la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam biñ ko laaje laajee allazina amanu wa amilu salihati tuuba lahum wa husnu maabin dafa wax ne tuuba shajaratun min aljanna daan ne machiratu miata amin siyaabu ahlil min minha dafa wax ne tuuba ak garab la gu nekk ca aljanna da daa di misaal nag na mu yaatoo daan na ngir ngeen xam garab googu di Touba ni mu ni mu yaatoo boo tàmbalee woon ca dàtt ba war fas wu gaaw danga nga dox téeméeri at doo génn kër garab ga noonu la noonu la Touba yaatoo foofu ci àjjana yonent bi sallallahu alayhi teg ci ne Touba li ñuy wax aljana booy booy dégg dañuy wax ne fur wi yëpp a nga ci àjjana dañuy lim grenade dañuy lim lu nekk dañ koy lim te fekk na kat la muy bari bari bari garabug tubaa dong la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne kullu shajarin jannati min har mboolem garab gu nekk ci àjjana ñu di ko tudd ca garabug Tuuba la bàyyi ko daan ne garabug garab la goo xam ne sunu borom subhanahu wa taala moo ko jëmbat ci loxol boppam di koy digal ne ko tàllalul ba fa soob yàlla mu topp miiri àjjana yi mu digal ko ne ko àjjana ju nekk tàbbi fa mu sànni ab bànqaas ci biir àjjana ju nekk waa ajana seen yére yi ñuy sol bu ñu leen lijjantee ba dara desul lu dul tàbbi ajana yére yi leen di solal ngir ñu tàbbi ajana ci garab ak Touba lañ koy defaree kon Touba mooy lépp Serigne Touba nag garab googu lañ naan yàlla muy muy dëkkam bii bi mu ko sancee ci 1895 ca déwén sa moom Cheikhul Khadim di 1896 ci la bind téeréem bii nga xam ne siiw na ñu di ko wax làkk Touba di Matlabul Fawzayni ca tarjumaan ja dafa am benn ay alxuraan bu mu indi boo xam ne daf ci doon barkeelu na ko Seydina Ibrahima waxe woon Seydina Ibrahima dafay nit koo xam ne sunu borom da koo yebaloon Hijaas ca Makka muy désert boo xam ne amul ndox amul ay garab amul dara luy naat loo xam ne doomu aadama war na faa mën dëkk ba mu fa demee jaaxle waaye mënu faa ñàkk jóge comme ni Sëñ Tuubaa ñëwoon Tuubaa rek nga xam ne fekku fi dara ay nag la fi fekk rek ak ay saaway nag ak i bël nu mel noonu la Seydina Ibrahima ñëwoon nag waaye mu xam kàttanu yàlla ñaan ko ne ko rabbana inni askantu min shuriyati bi waadin gayri si sarin inda baytika al muharram rabbana li yuqimu salata fa min azamaraati laallahum yaskurun waaye warsuqu min azamaratin googu ak min shuriyati lu mat a bàyyi xel la ci bisub tey bii ak ci jataayub tey bii sunu borom sëñ Tuubaa dafa barkeelu ci aaya boobu aaya boobu day yonentu yàlla Ibrahima dafa ñaanoon yàlla ne ko sa ndigal topp ba ñëw dëkk si fii dëkk si naa bi may ñëw samay sët laay samay sët laa àndal te booba la àndal doomam waaye sët la jëfandikoo loolu sëñ Tuubaa bu ci topp bu ci bu ci jaaraatee dañuy gis ne Tuubaa ci kanam gii la sëñ Tuubaa doon ci kanam gii la sëñ Tuubaa doon junj ndax dañoo ñëw ba sëtti sëñ Tuubaa yi min suriyat yi Touba Ca Kanam door a feeñ sëñ Modou Moustapha nekk na fi Touba Ca Kanam feeñul ba Ca Kanam feeñul bi ñu duggee ci sët yi min suriyat yi googu ci la Touba Ca Kanam door a feeñ daal di dal nag war suqum min az-zamaraati tàmbalee ci liggéeyu garab nag gi nga xam ne sëñ Touba bi muy tudd aaya boobu sunu borom tuddul garab suñu borom meññet la wax am meññet waaye xam nañ ne meññet ci garab lay bàyyi ko kon nag bu Touba Ca Kanam indee projet bii fas yéenee naatal Touba ci garab yoo xam ne garab yi meññet lay doon nañu xam ne la sëñ Touba doon ñaan wuy na ci euh, Touba ci kanam ñu sante ko yàlla bu baax nag te xam ne sëriñ bi ku bëggoon dëkk bi la waaye garab yi tam bàyyi woon na xel lool ci dëkk bi di Touba ci kanam ndax wax nañ ne bi mu nekkee njaarim daa yenn saa yi daan daan génn balaa wax ak kenn day laaj ndax amul ku bàyyi ko ci sama dëkk bu tedd ba ay gan bu fa ay gan ñu bàyyi tubaa Touba amee ñoom lay njëkk a dalal wax nañu ne takkoon nañ ne mësul am benn bis bu muy xëy ne amul ku bàyyi koo ci dëkk ba même bu fa kenn fanaan itam balaa ngoon dina am gan gu bàyyi koo Touba bokk na ci yem daan laaj ci dëkk bi garab yi garab yi te boobu ay nit a fi ay daaraa ngi fi lu nekkee ngi fi waaye lan moo tax muy tànn garab di ko laaj xamoon na ne bisub tey bii dina ñëw kon bi bisub tey bii ñëw na sëñ Touba moo ñaanoon yàlla dëkk bi fees dell ak ay meññat meññan moomu mënut a bàyyikoo ci ay nixma mënut a bàyyikoo ci ay potu lamp mënut a bàyyikoo ci ay miir yi ñu karo ay garab lay doon ñu jëmbat ko di ko toppatoo di ko suuxat ba mën ca am bu loolu amee ñaanu sëñ Tuubaa gën a nangu te dana nangoo ci waa Tuubaa ci kanam kon nag faw ñu jël suñu yitte jiital ko ci yittey sëriñ Tuubaa ndax yittey sëriñ Tuubaa bu fajoo suñu yitte lépp gi ci biir ndax nu suñu yitte bariwul lekk ak naan takki soxna wari oto tabaxi kër te ku fi yàgg dootoo ko mën a jariñoo ku faatu it bàyyi ko fi soxlay sëriñ Tuubaa nag mooy ridwanullahi wa ridwanu minallahi akbaru dalika huwa alfawtul azim texe goo xam ne dootoo tàggali kon moom mukk foo toll di am jàmm di am dépense sabak njaboot wér nekk si jàmm doo am benn tolof tolof te boo deewee sëñ tubaa gëstu na la jox la rasulullah yi loolu mooy soxla sëñ tubaa kon nag nañu bàyyiwaat loolu xel bu baax a baax xam ne tuubaa ci kanam gii mi ngi tegu ci yoon wa sëñ tubaa bëggoon kon ñi ngi ciy woo murid yëpp ginnaaw bu ñu leen sante sëriñ abibu ak cheikh abdoulahat abibu sëriñ abdoulahat abibu dina jël kaddu waaye ñi ngi xamal mbooloo mi ne leen jëf jii ngeen jëf tey taarix bu rëy la ci yoonu murid tey jii wan ngeen sëñ Tuubaa ko bu raay bi dellusiwaatoon dinañ ko gas te duñu laaj dara lu dul sunu ñaq wan ngeen sëriñ Tuubaa ne ko bu jumaa ji tàmbaliwaatoon dinañ ko jaxase ciment beeg sunu yuur ba mu egg wan ngeen sëriñ tubaane ko boo bu Badar ñëwoon danañ jiitu ca kanam xëyum tey mii wane na ko ndax nit ñi teel nañoo ñëw joxuñu leen daanaka ab añ ndox mi dañ koy fortaatu waaye kenn ñi mu wut dem sa kër ngir jàpp nga ne boo fi jógee war nga sëriñ Tuubaa ba heure bii tey jii loolu nag mooy li ab murid war a def aslamtu nafsi niñ koy waxee jox naa sama bopp adduna ak alaxira loo ma digal ma def ko loo ma tere ma bàyyi ko bu sëriñ Tuubaa diglee leneen loo nekk lu dul loole war nga sëriñ dëkk bii nag dafa am benn naar bu ñuy wax Abdoulahi Salih dafa masala sëriñ tubaa ndax dafa xamoon sëriñ Tuubaa ni mu fonk dëkk bi Mouhamadou Abdoulahi al Alawiyu moo bind nafaatul miskiya dafa laaj sëñ tubaa ginnaaw bi mu seetloo sëñ tubaa ni mu bëggee tubaa mu ne ko man de ni nga bëgge dëkk bii damaa jaaxal lool sëñ ne ko ginnaaw Màkka ak Madina tubaa ci gën moo dax ma moo tax ma bëgg ko daan na ko nag ndax dooma laaj daal di def li ñuy wax étatul kalaam ci bayaan gën a guddal wax ji ne ko ndax dooma laaj lu tax nag ma moom ko naar bi laaj ko ko sëñ ne ko bi mu gënee ginnaaw mag ak Madina la ko yonent yëpp awliyaa yëpp saali yi ne yëpp doon sàkku seen borom sunu borom nag nekk ku maanu koo xam ne dana leen duma ko jox kenn di ko xañ kenn ndax man ku maanu laa damay bàyyi Touba mu tànnal boppam kan la bëgg sëñ Touba nee na Touba ma tànn ma moom tànn gi ma Touba tànn nag moo tax ma moom moo tax amatuma sago ci moom moo tax ma bëgg ko nii ma ko bëggee loolu nag nun bu fekkente ne tey jii ñooy dëkkandooy Serigne Touba te wax dëgg yàlla Touba nu ab dëkk di mel ci àdduna rek war na ne ma a mel Touba lépp nangu na fi lépp nangu na fi ak jaamu yàlla nangu na fi alxuraan nangu na fi jëf ju baax nangu na fi gàncax yëpp na nangu na Touba te sëñ Touba moom ku nekk xam na nag kenn bañal ko kenn weddiwu ko xanaa doomu aadama waaye jinne yeeg malaaka yi moom kenn gënu leen nangu sëñ Touba neex Cheikh Mahamadul Fadil waa ji sëñ Abibu mii taxaw nett li ne ne sëriñ bi bi ko sunu borom joxee jumaa ji jinne yeeg malaaka yi ñëkk ñëw ci moom ne ko duñu la ko bëgg a mu ne leen dama am aw ñoñ te bëgg ñu jariñu bàyyi leen ma digal leen ko malaaka yooyee ak jinne yooyee bëgg na tabax jumaa ji ñi ngi fi nun bu ñu yaafuusee ñu defar Touba ñu kon nag nañu nañu jël suñu yitte yëpp jëme ko ci liggéeyam suñ Touba ndax Touba ci kanam dara génn ci Touba lépp Touba kese la fu waay mën a dajalee dara Touba gii lañ la koy defal te lépp lu ñu defal Touba Touba moom du ab dëkk ak kër la sëñ Touba ko moom kenn ku ne sa kaareb kër sëñ Touba da la koo dénk ëllëg yowmal xiyaam fa ngay dekkee sëñ Abdoulaye nee woon ne kenn ku ne sa pujum nekk ci Touba sa seere yowmal xiyaam kon loolu xam nañ ne du ab dëkk kër la ginnaaw nag bi nga xamee ne kenn ku ne yaa ngi jéem a sa kër nañu góorgóorlu ci mbedd yi sëñ tubaa yi ba mu dàq ci mbedd addina yëpp ndax man na ne mel sëñ tubaa amul morom amul morom moo mujj ñëw taraw ñëpp yejjinu di ande malikin muqtadir kullu waliyin lil jinaan yabtadir te it yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na aljana ñeenti dex yooyu ngeen fa dégg genn gi di lexu dexu dexu ndox genn gi di dexu euh, meew benn bi di sàngara benn bi di lem benn bi di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ma ngay bàyyeekoo ci reeni garabu Touba. kon tuuba ni ko yàlla defee fii ci kaw adduna ci centre Sénégal nga xam ne Sénégal gépp mën nañoo jëriñu ci Touba ëllëg yowmal xiyaam garabu Touba googu nan lay jëriñoo àjjana kon nag nañu gën a góorgóorlu bu baax sëriñ Abibu nee na sant na leen ci taxawaay bi bu baax yëg na coono bi gis na jëf ji waaye nag nee moo moog jëwriñam yi mu àndal soo ba léegi ñu ngi seen biir di yàlla di gis li ngeen di def di xool jëfin ak ak ni ngeen ko jëf ji ak ni ngeen koy jëfee yéene ji ngeen ci àndal waaye nee na day mi ngi waat ci yàlla ak sëñ Tuubaa ne gisam googu gisa gumba rek la waaye njàccaar li dëgg mooy sëñ Tuubaa te nee na gis na li ngeen jëf te moom mu mu gis li ngeen jëf nag wóor na ne am nag fay te dina leen ko fay kon nag nañ gën a góorgóorluwaat ci dëkk dëkk bi gën a góorgóorluwaat ci Tuubaa ci kanam te xam ne lii du ay caaxaan ñaanuk sëñ Tuubaa la faawu day nangu képp koo xam ne jàpp nga ne dëkk bi am na dara lu fi jomb bu yeboo nga dem toog waaye nag yàlla na la yàlla may fa nu gudd la nga jàpp ne da nga jomb danañ la ko defal sa kanam nga gis ko ndax sëñ tubaa dara jomb ko la gënoon a jafe mooy këru daaru manaan gii ba mu lakkee sëñ tubaa wax maam Cerno na ko na ko defar sàkket woo xam ne dana të ak lakk dana të këm tëmmax te loolu ñu ko doon xool ci jamono jii dañuy wax ne mooy seng wala miir te boobu miir amagul maam na kër ga yaatu na ba muy wër ab seng fii lii may wax nii ci làmmiñu Seex Saalihu Mbàkke laa ko déggee mu ne maam Cerno kum mas a dem danga nga koy wax ne ko teemu laa teemu laa sa weccel ndigal li ba beneen yoon ndax ab seng kenn xamu fi xamu ko fi kenn waaye maam Thierno daan tontu ne sëñ Touba lu mu bëgg dina am te lu ma digal dinaa ko def sëñ Saliou nag nee na li ci gën a li ci gën a doy waar mooy ba mu sengee kër gi ba noppi euh, sengee rek des na ay tonn te dañ doon wax ne amul fenn Sénégal loolu ba tey jii moo am ci yoon ci yoonu sëñ Touba yi moo am ci yoon mu murit kon nan gën a góorgóorluwaat takkuwaat